salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax di leen ne saa yu jàkkaarloo Dakar net mbégte ak contentement la ñuy ànd yéen jour seen émission doorate na comme ni ñu koy defee mu nekk Face à Ria seen premier na numéro tey ñu seet suñu benn sister suñu benn sœur boo xam ne macha allah dañuy bàyyi rek mu nuyoo mu présenté wu ñëpp xamandoo kan la ci loo Réa ça va. Aïda Sow na baataa <laughs> noonu dara nag bul ma weer nag. <laughs> ci dugg ma ne bul ma weer ci dugg nit ci nag man dégg ma xaal pulaar laa bu déggul xa euh, bu déggul pulaar so bu leen ma bu leen ma jugé nag dama dama gëj dama gëj Sénégal euh, yàgg états man Aïda Afifa Sow laa tudd man maay euh, Miss Colorado 2019 for America. maa ngi nii di ñibbi si waa Sénégal merci pour le déplacement hein, vraiment. mais tey tey bu ñu la waxee Aïda Sow mooy kan ah Aïda Sow kay man euh, j'étais la première femme noire en 30 ans bu gagné euh, titre Miss Colorado for America euh, nag bëgg ñibbi si parce que ku dem bitim réew yëpp il faut nga dellu fi nga jógee bëgg ñibbi si dafay ay projet bëgg ñibbi si nekk ci tourisme bi peut-être télé rajo. Euh, xam nga yu baax yi rek jéem a dimbali suñu suñu euh, réew bi mu avancé ni ma mun a dimbalee parce que man vrai sénégalaise la sénégalaise la sama papa sénégalais la sama yaay sénégalaise la euh, so il faut que li ma munti jàng yëpp États-Unis ma ñëw indiwaat ko fii suñu dëkk jéem a seet nan laa mun a nekkee une bonne partie de cette société. ñu gis ni que nga yàgg génn Sénégal donc ba nga fa demee yan yan difficulté nga fa amoon est-ce que après c'est facile pour nga adopter. première difficulté bi moom mooy dem fi nga xam ne déggoo langue bi te xamoo ci dara bi may jógee Sénégal euh, j'avais peut-être sept ans euh, te dégg ma woon anglais mais léegi maa ngi ñibbisi dégg ma wolof <laughs> dama réer Euh, mais loolu moo doon difficulté bi mais man euh, man genre personne bi nga xam ne fu ma dem il faut que ma dem fa pour pour jàng li ñu fay li ñu fay jàngal ma dugg ci culture bi vraiment parce que bi depuis ma nekkee xale dama xalaatoon ne il faut que ma ñibbisi man Sénégal toujours sama xol la nekkoon soo xam naa ne damay ñibbisi soo damay dem rek pour def expérience bi euh, après seet na laay indiwaat suñu pays fii. lan lan jot a def. dama fa def bëri na de. ñaata temps nga am am nga deux heures de temps ma la sama. résumé ok euh, man euh, à 17 ans j'ai fait l'armée américaine les Marines euh, bi ma jógee Marines dem def police def na sécurité privée jàng naa finance jàng naa entrepreneuriat avec Duke Université parce que dama gëm ne nit loo war a def sa àdduna muy jàng sa cerveau yàlla daf la ko may sa xel yàlla daf la ko may pour ngay mun a jàng di ci dugal mun a rajouter loo mun a indi ci euh, ci àdduna bi voilà euh, so man loolu laa def euh, année dernière comme j'étais garçon manqué bi may bi may màgg nii ma ne xaaral ma dem dem def li ma musul def ci adduna muy affaire u Miss bi après ma gagné choqué parce que dafa euh, parce que li nga nekkoon garçon manqué moo tax nga choqué wàll. bien sûr man dama ko dugg dama ko defoon pour expérience bi euh, sama liggéey yëpp yi ma doon def j'étais pas avec de femmes soo manee il faut ma dem jéem a nekk ci euh, milieu avec des femmes xëy na ma amee xarit ci biir wala expérience bi jàngal ma leen li nga xam ne musuma ko xam mais bi ma demee ba gagné moom damaa tiit surtout que Colorado moom bëriwul nit yu ñuul foog ma woon ne africaine bi dañuy ñëw mooy ñoo gagné voilà euh, so j'étais choquée mais après mujj naa ci def ay yu baax ñëw fii ci euh, euh, orphanage yi indi ay yére ak yooyu pour xale vraiment commencer defar ay relation ak ay ay business foofu nga xam ne mun nañu ñu supporter suñu leen soxloo ñu ñëw Sénégal supporter peut-être village yi indi ndox wala jàngal leen euh, yenn affaire affaire euh, agriculture wala dara mun nañu ñëw supporter mais euh, def na daal ba ma mun a am ay relation yu bëri nit ñi xam ne dañ ma respecté te dañ ma bëgg te bëgg nañu liggéey ak man so mun naa leen indi fii Sénégal ñu dimbali ñu ci ci lu ñu soxla. 2019. Um, so affaire Miss bi moom euh, li ma bi ma bi ma ci demee c'était pas euh, comprendre ma woon daal affaire Miss bi lan nan la doon demee parce que c'était pas mon milieu mais euh, bi ma ci duggee ay femmes yu I mean ñoom loo munti xalaat ci àdduna ñu ngi fa ay docteur ak ay dentiste ay business woman I mean ñu bëri ay mère de famille ñi nga xam ne Euh, euh, am nañu ay doom euh, amin yu bëri ay femmes très intelligentes très belles successful ñuy ñëw pour tenter seen chance man bi ma demee dama ñëw rek man jotee li ma mel rek laa mel mënu ma mel neneen lu mel loolu la mel dama ñëw naturel ni ma mel laa mel soo ma ñëw ñu laaj ma sama parcours yooyu ma wax leen sama vie militaire lan laa fas yéene def ma ne leen euh, foog naa miss bi du du war a nekk miss Colorado rek mais c'est miss mondiale parce que il faut ñu xalaat àdduna bi ak xalaat euh, ñu ñu soxla parce que dañuy utiliser sa plateforme pour def lu baax doo utiliser sa plateforme pour wane wu pour jël ay photo pour être toute belle mais da ngay utiliser sa plateforme pour connexion yu mu lay jox nga mun a dem euh, dimbali kenn su ma demoon peut-être Mexique mun a dimbali kenn parce que am na benn compagnie mooy wax mu dimbali leen wala ma xam kenn ki nga xam ne mun naa ko indi fii Sénégal mu dimbali ñu. so loolu laa jëlee opportunité bi te juge yi foog naa gis nañ ko 50 euh, pour cent c' était l' interview 25 euh, pour cent euh, mooy sa sa kii robe de soirée pour cent maillot de mais c' est l' interview moom moo lay moom mooy def ba nga gagné. waaw non man maillot une pièce laa Euh, mais dou sa apparence daal loolu c'est pas important ci àdduna parce que y a les femmes elles sont partout yaa ngi yaa ngi toog sama wet yaa ngi rafet macha allah euh, xale <laughs> mais xale yu jigéen yi rafet yi son sont elles sont partout mais c'est li ngay indi euh, li ngay indi ci ci plateforme bi loolu moo important ak lan ngay lan ngay def ci àdduna gëm yàlla xam nga gëm say waajur ak ak dégg seen digal ak ak mun a si vraiment dimbali sa pays loolu moo moo important. important nga nekkoon États-Unis euh, gis nga différence bi États-Unis ak euh, Sénégal yenn soli nii boo ko solee dañ lay xoolee benn bët bi noo gisee différence bi. ah ku nekk ku nekk ak sa culture ñun suñu culture man xëy na tey ma sol yëre wolof suba ma sol yëre tubaab mais ba tey da ngay respecter euh, ses cultures ses normes ses religions ses parents euh, xalaat ci yàlla su may dem plage xëy na ma sol maillot parce que c'est normal mais euh, ku nekk ak ak ses ak ses choix ak ses cultures mais da ngay sa bopp rek loolu moo important. nekkee nga nekk foofu noonu yàgg fa lan moo la doon manqué lan nga doon xool Sénégal xam ne da doon manqué da ree bu ma jooyloo lépp waaye lépp lépp lépp muy lekk bi muy culture bi muy couleur yi muy musique bi muy say waajur sa famille loolu yëpp daf lay manqué parce que comme adulte tamit nga nekk bitim réew nga xam ne yow kenn yaa fi nekk di jafe sa life euh, su yenn saa yi da ngay même fii sooy liggéey yenn saa yi da ngay sonn nga bëgg a woo sa yaay wala sa papa wala nga bëgg dem toog sa kër tante wala nga nekk sa ak say cousin wala ngay woo sa xarit ngeen dem plage loolu yëpp daf lay manqué you know loolu yëpp daf lay manqué foofu yow kenn yaa fay nekk di ñafe sa àdduna euh, di ñafe sa life euh, te soo wootee surtout ak différence horaire bi moom loolu day xaw Euh, suñuy nelaw fii nii ñun ñu ngi yeewu um, so loolu nag day metti mais su ma ñëwee fii damay kontaan lépp ay changé su ma ñëwee fii damay damay yeewu rek di sourire. sourire baa ngi ba fii. yow mënu ma ko contrôler damay yeewu di sourire parce que dama kontaan sama frère ngi fii sama papa ngi ne le sama tante ngi ne le moom ma solal yëre tey mais yooyu yëpp xam na du ko am fële. du ma ko am fële foofu yow kenn yaa fay nekk ak ak liggéey bi loolu c'est juste le business là-bas mais fii moom euh, je suis pas complete tant que nekkuma fi. so loolu la lépp. ñu gis ni que ñenn jeunes yi dañuy dem tukki dem changer dañuy mel ni que bu ñibbisee Sénégal dañuy changer da ngay gis ñuy changer comportement ñuy mm-hmm. changer habillement. Mm-hmm. comme si que fële na le moo gën fii te alors fii mun na gën foofu. mais je pense pas que c'est loolu je pense pas que c'est dañuy dañuy foog ne fële moo gën. dañuy jeng <laughs> ah jëli moom xam naa ne si taw États-Unis moom du ñibbi si mais <laughs> du loolu non je pense pas que du loolu mais da ngay jël ay habitude foofu xam na soo yeewoo chaque jour ak sa routine da ngay jël ay habitude yi nga xam ne doo ko sax tey ah, am na yenn état yi nga xam ne dama fay dëkk jékki-jékki rek seen accent ma jàpp jàpp seen accent te du ko sax du ma ko tey euh, soo ñëwee li nga tàmm rek moom ngay def mais moo tax nga ñu war a toog fii peut ay deux mois trois mois nekk ak sa famille vraiment dugg ci culture bi nekk ak euh, nekk ak say waajur euh, dem peut-être ci village yi su fekkente ne foofu la sa famille nekk nga vraiment euh, nga jëlaat culture bi mais c'est pas méchant je pense pas que c'est méchant de foog naa ne rek routine bi moo lay dugg te doo ko doo xamee noo ciy génn man gis na bi ma ñëwee léegi nii rek la sama wolof bi commencé améliorer wu parce que leera leeragul sax <laughs> des na <laughs> voilà mais da ngay damay essayer parce que su ma essayer wul du mës du mës a baax euh, anglais bi moom laa gën a confortable mais c'est je pense pas que c'est méchant de mais su suñu ñëwee fii rek def effort bi ñoom luñ ci mun lu ñu mun a indi jóge bitim réew indi ko fii moom dañuy apprécier rek waaw euh, nga nekk Miss Couleur Ado macha allah yan euh, yan buntu la la ubbil buntu yu bëri comme je j'avais dit like euh, opportunité man li nekk sama xol mooy dimbali nit ñi su ma gisee xale yi waaw voilà social loolu moo nekk sama xol looloo tax man que waaw mais depuis que j'ai 17 maa ngi def service ku dëgg service militaire moom xam nga ne xalaatoo <laughs> xalaatoo sa bopp euh, mais loolu mu nekk sama xol mais man tout le temps dama dama dama doon xalaat ne lu ma munti jël ci li may def foofu noonu c'est pour indi ko fii mun a dimbali peut-être ñu ko soxla. parce que su ma ñëwee fii dañuy gis suñu àdduna ñun lu ñuy xeeb foofu noonu états uni da ngay nekk ci benn euh, espace bu baax mais da nga koy xeeb nga ñëw ba fii nga xam ne même soo génnee fii sama buntu kër da ngay gis ay xale yi nga xam ne amuñu sax dàll loolu dafay dem ba dalay lay metti même suma ma wax daf may metti euh, so opportunité bi nga xam ne mun naa def ay connexion avec euh, des personnes xam ne ñoom def nañ ma confiance ba suma leen ne ñëw ñëw leen Sénégal ñu def benn genre projet dinañu d'accord su ma su ma amee connexion yi fii connexion yi fii rek moom mu manqué gum mais connexion yi fële moom ak sama expérience yi def naa ko mais pour ñu ñëw fii moom mun a dimbali suñu peuple ñun ñu mun a dim man man parce que je suis ama a patriote vraiment pro Sénégal soo duggee sama kër sax États-Unis maa ngi yore sama drapeau Sénégal <laughs> ku dugg rek ne yow foo jëlee sama la euh, sama famille yëpp ngi fi so euh, mais connexion yi may jox ak yu yu ma jox ci année dernière loolu loolu moo gënoon important parce que mun nañu seet ci futur bi yan projet lañ fi mun a teg fii nii Sénégal. yaakaar ni euh, a nga fi mën a teg. yoo xam ne dina apporter jeunes yi ak ñoo xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw. Eh, lu bëri man euh, vraiment fu mu nekk nii euh, maa ngi xalaat déjà tourisme bi. voilà parce que ñu bëri xamuñu ne Sénégal c'est le paradis. ñuy nank fii di voyager ak euh, Caribbean ak ay Mexico ak mais suñu ñëwoon fii dañuy kontaan man fii moom ku fi ñëw jàmm rek ak salaam ngay am incha allah. dëkku teranga la da ngay kontaan te doo xamoo sax ne affaire euh, yi fi nekk yëpp ñu ngi fi. da dem ba tiit maa ngi nii euh, bi ma ñëwee fii j'ai fait Fatala dem naa ay ah, euh, demaguma Casamance nag mais maa ngi ak sama benn xarit ku am benn agence bu tudd Travel with Ziggy moom moo may yóbbu ay kii yóbbu na ma Fatala mais. même dakaar fii nii mun na def tour ay volet vélo nga xam ne journée bi yëpp da ngay jël nga xam nga xam fa ay nit euh, journée bi découvrir ce pays xam ko Île de Saloum voilà ñoom euh, samedi la ñu dem Île de Saloum man malheureusement dama amoon shooting mu ñu ma dem mais yooyu yëpp daf koy def euh, mais wan ko nit ci nekk bitim réew ne leen eh Sénégal moom vraiment lu bëri am na fi loo soxla rek mu ngi fi ñoom ñu ñëw dimbali suñu économie moo gën ñun ñuy voyager naan dañuy dimbali seen économie foofu parce que ñun ñëpp soxla nañ ko fi te am nañu euh, we have the ways we have the means lu ñu soxla yëpp ngi fi. Euh, so loo mooy benn bi ak beneen bi mooy dugg ci village am na ay xale yi nga xam ne euh, dañu muuma wala dañu suur wala dañu tax te te amuñu nu ñuy def pour am nekk en communication ak nit yi te fii amuñu benn école lu ñu am. mooy bi nekk dakaar mais il faut ñu dugg ci village yi tuuti pour seet ñoom lan nañu soxla am nañu ay compagnie yu bëri ak ay euh, nit yu bëri États-Unis yu leen di dimbali di ñëw fii nii mais ñun comme africain ak sénégalais ñun ñoo war a dimbali suñu bopp euh, Akon déjà moom commencé na ak euh, Akon you know ak cité bi which is like lu muy def fii nii mais moom dañuy jël dañu war a jël exemple ci moom jóge États-Unis ñëw fii vraiment investir ci suñu village ak seet ñoom lu ñu soxla ak ñun ñu leen mën a dimbali xaw ma ko de mosuma ko gis <laughs> mosuma ko xam non juste suivre ko euh, ci projet bi même euh, avec la musique vraiment j'ai même pas le temps ay série ak ay musique ak yooyu euh, j'aime bien nekk man j'aime bien affaire sociale ak yooyu dugg ci télé radio je suis confortable devant une caméra mais pour guddi moom pour su ma tëddee nii moom damay nelaw parce que damay sonn ci suba <laughs> ci ci yenn projet yi su ma moom damay tëdd nelaw mais gis naa moom vraiment projet bi muy def pour dëkk bi euh, te euh, you know j'apprécie vraiment parce que loolu dañu war a jël exemple ci ku jugee ku ku màggee fële euh, dugg ci ay jaar-jaar yu mu dugg soo gisee histoire am dugg ci ay jaar-jaar yu mu dugg mais benn bañ fàtte parce que mun na toog foofu enjoy life am wala mu dem dëkk feneen ci àdduna bi euh, mais nga ñëwaat fii nii ne dangay ngay investir ce pays ça c'est très important. nga nekkoon fële na la yan soo moo ëpp li ngeen di dégg foofu. xoolal mbalax bi nag Aïda Samb nag moo nekk sama xol Aïda Samb dama ko bëgg parce que baatam moo neex man xëy na benn wala ñaari son rek laa ci xam mais xam naa ne su ma déggee baatam dinaa ko euh, reconnaître yaa ngi may dugal de danga may yónnee son yo ma déglu yónnee ma son yi xamaguma de mais dinaa xam xamaguma mais su ma ko xam. lan projet Sénégal Instant. projet yi euh, maa ngi doog euh, je viens de terminer un projet avec ministère de la jeunesse. Euh, def euh, takk maski yi comme ça xale yi vraiment ñu fagaru ci suñuy génn nii ak Covid bi ñu jël ko euh, seriously parce que ñoom ñooy génn di nekk ci mbedd yi xam ne mag yi nekk seen kër ñëw toog rek comme sama papa xam nga fi ngeen ko fekk man su xale yi ëpp lu ñuy génn euh, so vraiment pour yónnee message euh, ne leen na ñuy sol seen masque di jël seen précaution mais man je je voudrais bien travailler avec euh, peut-être ministère du tourisme Miss Sénégal seen seen Euh, Amina Badiane amoon na meeting ak ak moom ndeysaan très gentille euh, euh, très open très intelligente bugguma bugg bugguma dugg ci seen comité Miss Sénégal bi comme ça ma indi sama xam-xam loolu tamit je vais essayer de faire ça mais vraiment dugg peut-être ci ci ay série je sais pas yàlla daal moo xam peut-être su fekkente ne c'est c'est pour man parce que man vraiment ay dama bëgg def peut-être émission en anglais su ma mënoon def parce que loolu amuñu amuñu ko fii mais on a beaucoup d'anglophones xëy na ñu am fii benn émission en bu ñu war a commencer mais bi fashion you know am nañu fii ñuy lakk anglais yu bëri am nañu ay artistes yi nga xam ni ñu ngi commencer di rap seen anglais xëy na ñu boole leen ci euh, commencer ibi buntu yu comme ça ñuy feeñ Amérique voilà euh, Nigéria Ghana ñu ñuy gis parce que talent bi yëpp nga fii production yaa ngi fii euh, chaîne yaa ngi fii ah euh, mais c'est normal <laughs> c'est le Sénégal <laughs> c'est le pays du mbalax mais yaa ngi gis artistes yaa ngi commencé di génn ak seen hip hop yi ah, liki liki bi son <laughs> bi nan la tudd mais pull up voilà pull up ah, mais pull up baa ngi nii euh, ñu ngi fii ñu ngi ñafe ah xale yaa ngi nii ils sont il euh, y a trop de talent fii nii um, so peut-être ñu jël benn émission peut-être mode fashion boole ci musique waaw ñu mais en anglais. comme saa ñu mun a shop around xam na peut-être TFM TFM woo leen ma peut-être ñu def benn. mais yan série euh, nga yu Sénégal yoo xam ne yaa ngi koy saytaan te bëgg nga te nga yaakaar ne buñ la ci duggalee mun nga si jouer rôle bu neex ban série ngi ciy gis sa bopp. ok so seetaanaguma série yi nag. Euh, mais j'ai beaucoup d'amis dama ak ministère de la jeunesse projet bi ma def euh, ak Travel with Ziggy euh, suñu kii ñu doon excursion yi ñu doon def j'ai je me waaw waaw waaw <laughs> non ils sont ils like mais gisuma rôle moom moom daal nu mu xalima ni ko yàlla tuddee keneen mënu ko tuddee <laughs> mënu kenn mënul ñëw naan day jël rôlam wala jéem a jouer rôlam parce que moom ni mu mel na mel je comprends Halima moom elle est waaye yow elle est tey la anniversaire am sax happy birthday Halima <laughs> <laughs> euh, tey anniversaire am peut-être pas euh, rôle parce que gisaguma ko soo mënuma mënuma wax ci lenn xam ne gisuma ko mais su ma gisee benn rôle wala benn euh, série bu ma approché pour pour wax ma dinaa xool bu baax pour seet su fekkente ne dinaa ci mun a jouer euh, et yàlla rek lu mu bind sa parcours moom bind na ko ba pare ñaani waajur ak yàlla lu mu la bindal loolu rek la am man stressé wu ma ci dara damay def effort rek mais lu lu ñëw su fekkente ne baax na ci man te sama sama waajur euh, accepté nañ ko euh, amul benn problème loolu mun naa ci mun naa ci dugg ah xanaa xanaa xanaa seen directrice Amina Badiane <laughs> euh, non elle m'a marqué elle est belle elle est intelligente en plus dafa jël mis Sénégal bi en charge commencé euh, partenariat bi ak NBA Africa bu mu doon expliquer euh, dugg ci affaire tourisme bi mais loolu la ñu vraiment war a def utiliser seen plateforme comme des mis nekk di liggéey pour dëkk bi parce que Miss loolu nga war a def da ngay jël sa je les connais pas personnellement man nit su ma ko xamul euh, personally su ma la mosul a fas à face mënuma wax lu bëri ci yow euh, parce que xaw ma la mais euh, Amina moom xam naa ne lu bëri mu ngi koy def pour Miss Sénégal te lu mu lu mu xalaat pour organisation bi dafa mais dafa. parce que nee nañ Miss ren bi dafa am nañu ko gën a mais c'est pas la beauté beauté c'est <laughs> ci biir lay jógee. non beauté c'est c'est sa xol lay jógee rafetaay ci biir la mun nga rafet rafet rafet loo mënta rafet mel ne wàcc àjjana la ñëw toog mais su fekkente ne ci sa ci rafetul amul sens amul sens so non am na solo ah mais ku nekk mun nga mun ko gis apprécier man mun naa gis kenn léegi apprécier ko keneen romb ne ah yow sa jëkkër bi daa ñaaw yàlla su ma mayee jëkkër incha allah xëy na kenn romb ne ma ah Aida. ñaareel wala ñaareel nga bëgg a doon wala ah. man polygamie moom nekkuma ci xam na loolu laa jógee dañu naa ma yow bitim réew nag yaa ngi jël seen mentalité bi du loolu man dama xam sama bop rek. ah mais bonne chance ma leen di ñaanal rek reménage non eh, eh, non non monogamie <laughs> monogamie ah ñaanal su neexee non si ma leen di ma leen di ñaanal rek heureux ménage mala lay supporter ci say eh, ci sa bëgguma wujjee dama ko xamul sax nu ñuy wujjee wujjee soo sama sama waxee ëppaleel wujjee xaw ma sax nu ñu koy bindee bay wuje ñemewuma ko merci beaucoup dañuy bàyyi nga tàggatoo ñu te waaw merci non merci vraiment pour le déplacement c'est très gentil euh, vous pouvez me suivre sur Instagram man sama Instagram dafa privé woon mais léegi forcé nañ ma ba ma dugg ma def ko public euh, so léegi c'est Miss Colorado le numéro 4 America 19 euh, ci Instagram bi mais mun ngeen ma follow mu yónnee ma message euh, si vous avez des projets mun ngeen ma yónnee tamit ma seet euh, mais lu ma mun a def rek pour servir suñu communauté ci loolu laa nekk fu mu nekk nii mais mais merci beaucoup Ria c'est gentil. <laughs> jili moom attanu ma ko moom daa. mu ñëw woo eh, su ñëwee de xoolal su fekkente ne Aïda Sam ngay indi moom. nangu naa. léegi ñaata la lay jox <laughs> sama papa la ñuy woo sama tante ngi nii sama tante la ñuy woo sax ñu wax ko premier cadeau ñaata la. <laughs> merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal di la ñaanal lépp loo bëgg sa carrière yal na la ko yàlla defalal. di leen remercier ñëpp ñoo xam ne instant yaa ngi doon seytaan saytaan dakarnet.com seen émission Face à di remercier Jili Pape ah moom moom day lii rek merci rek pour kaawam Jili nag dañuy tax xew bi ndax Aïda sàmm day ñëw baatare baatare bi dégg naa sa cousine la. maanaam mu tay baas ak ceebu yàpp bu bëri di leen jox di daje feneen ak fu ñu koy defee si beneen daanaan merci beaucoup et à bientôt caaw ciao